léegi nag def ku ko neex mu jël waaye li yëpp daf ñu war delloo rek si yàlla xam ni àdduna wari neen rek dañ fi ku mën nga def lu baax ku mën nga jiital lu baax Ousmane Tanor nag li may retenir ci moom daal mooy nit ku maandu la ko lenn itam retari naa ko sànq ci lu Bamba Fall wax lu am sol maa ngi koy dégg ci rajo bi mu ne Tanor balaa muy dem feebar daf ko woo ni ko moom bu sañoon parti socialiste ñëppay doon benn ñëppay àndandoo ma gis ne loolu héritage bu mu testament bu mu bàyyil waa parti socialiste loolu war nañ ci tenir compte léegi nag gis naa itam mën naa seede ci ñaari jabaram yi ko yàlla jox parce que xam naa leen muy maam fili muy aram ñoom ñaar ñëpp nekk ay jigéen ñu baax ñu ko accompagner ci discrétion ak jàpp seen bopp ñooñu ñu leen koy jaal waaye nag ma gis ne Sénégal daal li ñuy retenir daal mooy Ousmane Tanor Seck homme d'état la woon nit ku la woon nit ah wax dëgg yàlla tey dañu ñëpp am na ak mbetteel nag parce dee sax kenn du ko xaar nit lu mu feebar feebar danga naan xaj na dama jóg waaye Ousmane Tanor Dieng de ñi mu ñu bette tey jii ah yàlla na ko yàlla xaree àjjana noonu xaaruñu woon deewum wax yàlla man nag li ma retenir rek ci moom mooy nit ku maandu la woon nit koo xam ne nii du lu mu xam wax du lu mu ko naqari ñuy yëg ko nekkoon na vrai homme d'état kenn mësu ko gis parce que bu fekkente ni yàlla dafa teg ci yenn position yi mu nekk premier collaborateur du président Abdou mu nekk ci position stratégique mu xam nañu information fu ne la lay jóge di ñëw lu ne ngay xam ci réew mi waaye loolu yëpp mu xam ci réew mi taxul nag ba mu di ko nekk di ko wax wala mu di ko jimaamoo dafa nekk rek di liggéey